ne kon ba tey àdduna tukki na ñu nekk ci nekk ci di ko doxal e jamono nag léeg soo gàttee xel nga gis nit defe ni moo la tane te fekk tanewu la boo sukkandikoo ci loolu ba def ko wujju walla nga xareeg moom yaa tooñ ndax dafa am wax fa ñu toll ñu doon dee sax duñu ko wax ñooñu nag dañuy yomb sikk ki wax fi mu toll dafa yomb sikk dafa yomb sikk ndax dafa am ñoo xam ne déglu seen soxla moo leen gënal déglu dëgg te doxul nag te ñun ci réew mi yow yaa ngi gis nit di wujjeeg moom ba sonnalu ko te fekk na moom mu ngi yërëm boppam waaw xam nga loolu tooñ la waaw tooñ dëgg la te daf daan am daf daan am sëriñ Moustapha bu sëriñ Babacar si ca dakaar ma sa wax Pape Malick ni ko man Cheikh Ama man ndax li mu mën a muñ ci boppam du wax kenn fa mu toll mu ni ko te lu jafe la waaw daan na ko di wax mu mel ni kon lu mët a bàyyi xel la surtout dafa xewwi kay nu xëccoo dafa xewwi kay nu wujjee dafa xewwi man rekk fi nekk dafa xewwi taxawal kanam dafa xew bi mag mu réew dafa xew bi mag mu yare dikku dafa xew bi waaw boo amee fukk ñoo mën a firil alxuraan nga firil leen alxuraan boo amee fukk ñoo mën a jàngal muxtasaru Cheikh Khalil nga jàngal leen muxtasaru Cheikh Khalil ah? boo amee jot def fukki xasida pour yonent bi ak Cheikh ak si nga def ko waaye li ci des topp ñu amul kilifa dang dang dang dang guddi dang dang dang dang bëccëg kooku doxul kooku doxul kenn du ko jëndee lu baax loolu kenn du ko jënde lu baax tabarkalla la damay wax bés bu ne ndax dañu am daje daje jàng waaw ca ndakaaru ndax itam nit du bàyyi àlluwaam ñu am suñu daje jàng yamale ko ci suñu biir di jàng woy di jàng alquran di jàng hadith dégg nga dañu ko commencé ci suba yenn yi bala ñoo añ di timis benn bés Pape Malick ñu waaw ndeke yàlla lu mu bëgg def am na fu mu ko jaarale bu yëngu-yëngu amul woon lii kañ lañ koy dabaat kañ dañ koy dabaatal topp mbedd yi rek topp nit ñi di soow loolu kenn mësu ko gis amoon na jigéen ju fi nekkoon daf daan waaxu rek topp mbedd yi ñu di ko wax maam bóoli waaw ma xamoon ko lool nag di ko faral di tooñ ndeysaan yaan nag moom nag dañ ko daan fàttali démb rek waaye duñ ko fàttali tey <laughs> ma rombee ma ni ko mam boodi foo jëm mu ni ma damaa teeru ji balees jaañ doomu ndar la ma ni ko balees ba mu dee kenn xamul kañ la mu ni ma balees jaañ deewul moom mook njaay Clédor ñooy ñëw tey ci Tiwaawan fekk démb rek lañ koy fàttali waaye duñ ko fàttali tey ah mais démb ak tey yëpp ngay boole farata la farata la amoon na beneen mbokk bu xel mi wàññeeku bu ñu wax Ibra Ndoy gëm mu nekkoon la te mooy ndënd yile waaw ku gëmoon ndënd la moo daan yenul ndënd ku ñoo wax euh, euh, yuga faali mbeng ak taani taani bay wallaay ndeysaan bu yenoon ndënd mi dafa diis ci moom bu jaaree ci buntu daara ji maa ngi jàng ma ne ko ma Ibra foo jëm mu ne ah tey farata dafa am mbënd mi kat mooy farata comme yenn yi dama daan seetaani sabar la ma ci gënaloon mooy ma dend ak moom di ko seet ba xam xaalam nu muy mel benn bés ma dend ak moom taani jël dënd bi jël galam bi dóor dóor dóor dóor mu gestu ma li ma wax ci waa mani ko ci lan mu ne mu ngi rey nit ñi di wallaay ndeysaan léeg-léeg mu fàkk suuf si ba mu des kekk bi mu jël nopp bi taf ci di déglu lënd gi nga dégloo bu mu yàgg bu jóg xool ma ni ma lay lay lënd moo tax shawq beneen affaire la moo tax beneen affaire la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan moo tax shawq beneen affaire la Maodo tudd na ko tudd na shawq tudd na zawq waaw gaar yëpp koy joxe waaw ba na kon loolu moo tax nu daje fi ñetti fan yii daje fi ñetti fan yii di ko yeesal te ëpp naa xeeb ëpp naa xeeb kat boroom a ko organisé boroom a ko organisé li muy séddale moo ko xam li muy mosle moo ko xam ñi mu am comme njaboot moo ko xam tabarkalla la ba ci liir ba ci parantal bu ko ca xeet ndax loolu la yàlla dogal e bu mag ñi paase ñu wax mustarshidin ñu wax mustarshidaat ëpp naa xeet waaw wallaay wallaay maa ngi ko fàttaliku wallaay waaw wallaay waaw waaw waaw. wallaay. wallaay ana ana laysa waaw. waaw. ci kattanu yàlla wallaay. waaw. ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla waaw waaw wallaay waaw Serigne Babacar daan na ko wax waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw wax na dëgg waaw waaw wallaay waaw wallaay waaw waaw wallaay wallaay waaw waaw wallaay wallaay wallaay waaw Wow. Uh-huh. uh Wow. Wallahi. Wallahi. Wallahi. Wallahi ndeysaan tabarakallah wallahi wallahi wallahi wallahi moom de lu ne dafay am seede waaw lu nekk dafay am seede kooku ci seede yi la bokk am na ci yu ñu mën a tudd am yoo xam ne ñeneen lañu koy tuddal waaw noonu nag lay demee tabarkalla bu dee mustarshidin ak mustarshidaat ci leeru Serigne Babacar la ñu juddoo waaw ci leeru Serigne Babacar la ñu juddoo ci leeram it la ñuy ci kàttanu yàlla li ñu ko yéene ci seen bopp it la koy jox li mu leen yéene it la leen di jox waaw taamu ci benn bu tuuti nag amu ci benn bu tuuti fa tabaarakallaahu bu ko defee nu di leen bàyyi xel te di bàyyi xel ñi nekk ci seen kanam di leen teete te jamono yabu leen mu mel na kon li ñoo ñaan nag ci barkeem moo di yàlla jëme ko kanam tabarkalla boole ko mucc tawakkal boleh ko ak boleh ko adir boleh ko ak pas boleh ko ak sàmm fit yi parce ku ci nekk war nga ñaan fit wu xaayda fit wu dëgër du pour xeex waaye pour li nga ne te gisuloo lu ko gën nga ca sax saxu kenn du la ca jële waaw mën na jafe waaye mën na yomb mën na jafe waaye mën na yomb ndax façon bu ne gis nañ ko ci façon bu nañ ko ci mu mel ni kon nu ñaanal leen yàlla di gën dëgëral seen fit te li nu miinoon mooy ku miin Sëriñ Babacar dootoo nekk baqaar lay lu wér la mbubb mbubb yu woyof yooyu la ma daan tere ne ndax nit ñi xamuñu nitu yàlla mbubb lañu xam kon nag bàyyil mbubb yu woyof yi tey sol mbubb bu ñu gome man kon na may def sol mbubb bu ñu gome te ñaari minute yu ne ñu woo la nga bëx foo jëm sol mbubb bu ñu gome te ñaari minute yu ne ñu yoole nga fëx yéeg escalier soxna si daan na ma wax ni man dafa woon naa ne escalier lay def lu bon yàlla xam na ko ndax daw rek daw rek daw rek daw rek daw rek tabarkalla ba at bi mu waxee ni naa dem teeru ji xalifa Muhammad Tëlba ma dem teeru ki keroog ala jitam si mbóoj laa àndal mu wàcc nuyu ma ni ma xanaa sa papa dafa xamatul lu muy def ma ni ko ci lu deme nan mu ni ma yeew nga teeru gan xaram na mutlaqan waaw ba mu ñëwee loolu la jëkk a wax Sëriñ Babacar Si ko bu ko yebale ti mukk mu teeru gan waaw bàyyi ko fi mu toog mokkal loolu ci daara ji la nu fekk tabarkalla tabarkalla ba tax na kon nag am na lu mu daan bàyyi xel ah yéen itam am na lu ngeen di bàyyi xel oh, mu mel na itam dëgëre la dëgëre boo xam ni yàllaa xam ni mu ko toll ndax léeg nga gis ci ñoo xam ni da ngay jaaxle da ngay jaaxle nga xam ne rek loolu ci sunu borom la jóge ndax naanuwaay naanuwaay la tudd waaw léeg-léeg jox la nga naan dara te fekk sa kàttan mënuloo mënul woon dara nga daldi mën dara tabarkàlla dañ koy def te itam tiwaawoon a gën a jafe ci dëkk yi leen ko tey dëkk bu jafe la kon nag ku fi nekk te nekk feeg sa pas-pas jar nañu di la ndokkeel ndax yombul am na nu maamu lu dëkk fii ci Tiwaawan maam ndambe maam ndambe moo jur ant caam ndambe waaw maam ndambe defe naa xam ngeen ko de waaw ndambe njaay moo moo jur suñu tant bu ñoo wax ah ndambe waaw moo ko jur anta caam a jur mayse defe naa mayse dafa teel gaañu waaye ba tey mu koy xalaat yàlla xam na ko daf daan wax ni bu Seex Alxaaj Maam Ndambe ku neexoon la bu neex waxtaan waaw Seex Alxaaj daan na ko di tooñ ndax dafa dëkk yoon fu sore muy wax ni bala ngeen a jëwati dem leen ba ca kër gannaaw Ndambe waay <laughs> dem leen ca gannaaw kër Ndambe ngeen di fa jëwe wëli yi Seex Alxaaj moo ko daan wax di ko ko tooñe waaye daf daan wax sëñ Babacar ni ko dossier Tiwaawan bi Maodo laata ñëw mu ni ko dossier ba boo liggéey yal na réer <laughs> ni ko boo liggéey ba nu taxaw ci ganamu yàlla yal na fekk dossier ba réer waaw xaw bu réerul rek àdduna tukki waaye tabarkal la dëkk bu jafe la ah, kejaan Rau wax na dëgg Abu kan nafai man nafai mën na duel jaan tak du du at mu muy ñëw Tiwaawan awan Hadj at gis ñëw bu mel noonu góor gi lu yéem la ndax dafa fekk noonu sëriñ Babacar yi wër réew mi yëpp wax ni sëñ Babacar dafa négligé jàkka Maodo ba àlla jërawaan na ngay dem pour yeddi ko seetal loolu li góor gi daj fukkeelam duñu ko daj sëñ Babacar si li mu daj fukkeelam duñu ko daj Yoyi yépp bu leen alaaji rawaan na nga jëm Tiwaawan pour Si ba baat ba agsee ci nopp góor gi jàpp nañu bés bi ba noppi bés bu triste la yàlla ya xam na ko waaye mu toog rek jàpp njàmburam ba Alaaji Rawaan ñëw dëkk bi yëpp fees dell waaye ba ñu dajee ba war a jël parole góor gaa ngi yaru ba mel ni ndongo daara góor gi Alaaji Rawaan ñëw ak dara jaam tabarkalla képp ku ko gëm topp nga ko keroog nga xam daf la jox wird wala mo daf la jox ijaaza ñu nekk bitim réew sax ñëw nañu Tiwaawan fees dell sëñ Babacar toog ci wetam sëñ Babacar daf ko mas di jàppe way jur alaaji rawaan ngom ni ko xam nga lu ma indi sëñ Babacar ni ko ah mu ni ko demal damay jofal si jur gi ndax yëg naa ne dem jege na te comme yaa ma digaloon ma sàmm ma jofal ci jur gi ku ñu war a yeesal ñu yeesal la ku ñu war a jox ijaasa ñu jox la ko man daal sama jaan wàcc na ñu ngoog ci sa loxo ñépp yaa leen yilif ndeysaan góor gi sëgg ba mu yàgg mu sigg ni ko ah, noonu laa ko fooge woon de waaw noonu laa ko fooge woon de bokk bokkul ak ni ko nit ñi fooge woon de waaw yàlla xam na ko bi fi shérif bi ñëwee fu nekk ñu jaarati fa seen sëriñu sëriñ ñëw na seen sëriñu sëriñ ñëw na bët réew mi di bëgg a ñu naan ñaw di seen sëriñu sëriñ ñëw na de ñaw di mu dégg ko muñ ko muñ mënu ko mu ni ma téléphoné la la Ousmane Kane ca Kaolack ni ko na wax shérif bi na ko fi àjjuma fekk ca àjjuma ja shérif bi ñëw adduna yépp fekk na sëñ Babacar woo leen kenn desul ci Sénégal ñépp daje si fi ah, waaw mu ni ko dama bëgg wax dara te bu ma ko waxee te fekkewuloo ko mu yàq ndax dama dégg ni nit ñaa ngi wër réew mi ni di wax sama njaboot yi naan leen seen sëriñu sëriñ ñëw na ma bëgg wax ci kanamu mbooloo mi yëpp ni doo sama sëriñ waaw yaay sëtu cheikh nag sama gan nga waaye ya xam nga kuy sama sëriñ mu ni ko ah mu ni ko ki tëdd fii Seydi Malick mooy sama sëriñ kumanukan nanggung ako wala nangulo kumanukan nangun ako mu ko sa maam bu ñëwoon ci dekk bi ku muy dalal mu yow cheikh mu mamu cheikh bu ñëwoon ku muy dalal yow lo rek la bëgg yi dégg ko kon nak ñepp dem seen yott నియమే వన్లమానే lama keroog ba mu wooye muqaddam yi kenn desul ku nekk mantu ba nga rafet la sol nga ko ñépp rang mu ne li ma leen di doye mooy bu ngeen man fii mag xaaj malik nalen leen for benn par benn ba ngeen jeex pour won konti. ni konte wu ma ci loolu kenn mësu ko dégg ñëpp dañu jaaxle keroog ñu mujj ni ko faf ñu yeesal benn yoon mu ni tey du bisu ko bil kulliyati ni tey yees la ndeysaan manto yëpp daldi rot nag ci suuf ku ne jaaxle ndax kenn ku ne xam nga sa kilifa loolu mooy li ci ne ba tax na li xew tey mbalit la rek ku ko natt ca ya daan xew di nga xam ni mbalit la rek Seydi El Hadj Malick radiallahu taala anhu daf daan wax ni pour li ma leen wax ni kilifa dina may njabootam lu mu amul mooy li ma leen wax ni yàlla dogal na tey waa ñu àggale tuuti rek waaw waaw ñu toogaay bi dafay metti ci moom ñu dimbale ko nag ci yoon wi ndax xam naa pas-pasu ko indi waaye mënu ko tabaarakallaa pas ko pas-pasu ko indi waaye tabaarkalla tabaarkalla mënu ko sax tabaarkalla waaw moom kay tabarkalla yëpp xam nañu ko tabarkalla yëpp xam nañu ko tabarkalla wallaay wallaay ndeysaan ndànk de ndànk de Ah, waaw waaw waaw maa gën tuuti rek wax naa leen démb ni jarbaat dana nu gàgganti doom danu nu gàgganti tabarkalla tabarkalla te loolu mag ñaamuñu ko woon mag ñi ñoo daan gàggante Cheikh El Hadj daf daan def bu waxtaanee ci jàkk ji ba noppi lu ko yitteel daf daan wax ni bu ma waxtaanee ba noppi damay yëg ñaari réaction ci mbooloo yi mooy dafay am ñu naan ku góor gi doon wax xanaa ñooñu génne nañ ci seen bopp ku góor gi doon wax ñi ci des ne ah góor gi tey dafa tàngat mu ne ñooñu sax nag ñëlee leen tane waaw ah, góor gi dafa tàngat rek moo yaram wi neexul wax leen ne àdduna moom noonu rek la ma samel yonent bi loolu da daan tawat ñàkk dégg te Serigne Babacar dafa daan wax ne Maodo nekk na fi bu jóge fi mësul jëfandikoo wilaaya xel mu rafet rek ndax wilaayam ëpp na nit ñi ndegam xelam moo leen ëpp waxuma la wilaayam mu ni ma itam fa su ma yéenee jëfandikoo wilaaya xel rek laay jëfanteeg yéen waaw moo tax xel mu rafet defar naa àdduna defar àllaaxira xel mu rafet defar naa àdduna defar naa àllaaxira boo ko amee ci sa kilifa am ko ci sa sëriñ sant rek boo ko amee ci sa kilifa am ko ci sa sëriñ sant yàlla rek moo war ah dafa fekk nag loo bàyyiwul xel doo ko am dama ma seeti sama benn wëllëre Amadou Lamine Daffé bokk nu woon tariqa waaye daan nañu waxtaan ci tur yàlla ndax ko soppoon turu yàlla la daan na ñëw fii ndax mu ngi bokk ci tariqal qadiriya waaye daan na ñëw fii sëñ Babacar di ko jox ay tur wala mu jox ko Serigne Saliou Sarr mu yóbbul ko ko ku bëggoon turu yàlla la ak kurus daan naa di dem këram dem fa bés fekk fa benn mag xamna nak nag mu def yëfu borom xel ndax bugul mak ni wax musiba ndax dafa tàmm deg musiba ci lamiñu mak ni musiba mu jëm ci sëñ Babacar si mu bëgg ko won nak niko ki Cheikh Tidiane la ko defé gor gi dotul ñame wax musiba jëme ci danga laa ak si nuyu ko rek mu daldi ni góor gee nuyul kii Cheikh Tidiane la ah, ku amoon xel la tabarkal daldi gis góor gi ñaawal kanam gi lool toog ba mujj mu ni ñun ñi Maodo yar daldi tàmbalee foofu buñ la bëggee képp foofu la tàmbalee te xam ñu ni sëñ Babacar leen gën a xam Maodo waaw mu ni ñun ñi Maodo yar dal di commencé di sànni ay flèche ñun ñi Maodo yar ba mu àggalee ma ne ko yow de Maodo yaru la mu ne man Maodo yaru ma ma ne ko mukk ma ne ko ñu Maodo yar ñëpp xam naa leen te yow xaw ma ma ne ko kon da nga yaroo kër Maodo waaye Maodo yaru la waaw ma ne ko du benn mu ni pat ma ni pat la li góor gi daan wax bu leen jàng xuloo waaye di leen jàng tont moom rek mooy li am solo waaw ay jamono moom doo jàng xuloo tont rek moom ngay jàng waaye mag ñi Maodo yar kay li nu nekk ndaw yépp xam nan leen waaw ni nu xamee sëñ Babacar lan leen xamee yàlla xam na ko mu mel ni kon nag ci lool rek la nu jamono neexul waaye nuy ñaan di ci boole di taxaw di ci boole di am yitte di ci boole ah te di gën a ànd ak sago ci daje yi gën a ànd ak sago ci daje yi kenn ku ne di may sa moroom mu jàll kenn ku ne bu sa moroom bëggee wax nga déglu ko ndax déglu ci teraanga la bokk may sa mbokk mu jàll ci teraanga la bokk te yooyu nag ëpp naa sàggane ci biir jamono ah ci suba rekk laa koy wax ak sëriñ Moustapha ma ni ko dafa mel ni côté boobu nag léegi taxawaay jot ci waaw ah, ñu di ko booleeg nag ñaan ay bunt yu ubbeeku xale yi mën a liggéey bunt yu ubbeeku ñu mën a xam li xew ci bitig ci biir bunt yu ubbeeku waaw yooyu yëpp daan ndaw dafay bëgg di yëngu bëgg bu yëngoo it ma am meññeent boo amee meññeent it ma barkel ndaw daf koy bëgg man fu ma demul amul tabarkal la ma di len ko xamal tawarkal la fuma wara taxaw rek taxaw na fa di set aduna bi nu mu demé lélé mu neex lélé mu naxati lélé nga dem ci réew dafa xam ken waye yalla nga fa waw yoy yeb dama ko daan def maa ko commencé 1946 ba ci at mii ben yon yoon la tabarkalla la tewul ma nek sénégalais teewul ma nekk taalibe sëñ Babacar Si te teewul ma nekk seen soppe ngeen di sama soppe tabaarakallaahu loolu la yàlla dogal waaw waaw ci kattanu yàlla waaw wallaay ndeysaan waaw waaw boo xam ne su ko waaw fa aynama tuwallu sa jotaayu tey bii waaw ci sowu kër gi waaw mooy jotaayam ba wallaay ca penku kër gi wallaay ndeysaan sa col gii nga sol fii ci sowu kër gi waaw mooy colam nga mu daan sol ca soowu kër gi. wallaay ndeysaan. sa kàddu yi nga wax fii. ci soowu kër gi. waaw mooy kàddu ya mu daan wax ca penku kër gi. wallaay ndeysaan. ñii toog fii tey ci sa wet di la déglu. wallaay mooy eh, doomi sëti maam ak bàyyi yu baax ya daan toog ci wetam di ko déglu. wallaay wallaay. kon nag li ñu lay ñaan. waaw mooy sa ñetti fan yii. waaw li ñu ci yëg. waaw mooy cure de rajeunissement la wallaay pour xol yi feebaroon yépp wallaay qalbil alilu waaw wa anta jaalaylu suuf waaw waaw kon nag asa bi wasl wallaahi dëgg la an yazula rasis wallaahi wallaahi taala kon nag yiw waaw ak fu mu mën a jóge ci kaw ak suuf waaw sa ndono la wallaay safaan itam waaw fu mu mën a jóge ci kaw ak suuf waaw sa ndono la wallaay وإن كادوا ليستفزونك من الأرض والله ليخرجوك منها والله وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا والله ولن تجد لسنة الله تبديلا والله كون كنا لنو لاي نيان واو بوكو بايتي واو amo sax jotam waaw mais njaboot gi dañ ko soxla wallahi te ñi ñu sonnal yépp wallahi dara taxul ñu sonnal leen waaw lu muy benn baat والله يا قوم اتبعوا المرسلين والله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون والله كوكو واخ دنجكو جاب دور كو بامو نوي ني سغات والله نيكو ويدكو موني لين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون والله اتخذ من دونه آلهة والله إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني موني لين لولو بمكو ديفه إني لفي ضلال مبين والله والله كون نك يلنا يلا يغال ساسك والله والله والقران العظيم سينبي واو يو يا يعلم البلاد والله ديسان ومجدها والله ديسان وفخرها والله ديسان يو يا قاصور والله عهدك صفوها وسلام والله لك عهد قديم والله بالجدود والله يا بعد هند تجلت والملوك زمامها والله غبال ما اق والله وروما لا دوك لي باي بي واخ دويلو ناكو مي سمكو غينوول وون ادنا تي كانامو نجابوت يي ما بوكال سيرفيس بي ادنا تي ادنا دنا توكي والله كون يالنا لا يالا تخاو والله مصدور والله نفثة مصدور سهل شغل حزمة لك نيكو سد النمت نانا نغني أخو أخو باو نانا كو سد النمت نغني أخو أخو نفثة مصدور لا وهي دفا فك مبنام جم بير لندو فنكو فنكو كاتنم war na ko wattu waaw tabarkalla tabarkalla ki nu yaakaar mu nekk ci sunu kanam nu doyloo ko rekkit jarul di songo waaw ak kàccoor ba ba mu songee ilimaan ja te ilimaan ja xattar bi ko mu daanu ilimaan jawar ci kawam am lu muy làmb mu ni ko góor gi looy làmb mu génne paaka mu ni ko mbaat dang may rey mu ni ko ah, moom laa fas yéene de waaw mu ni ko yàlla kat tere na ku rey nit mu ni ko gannaaw ku la doon bëgg a rey waaw def fekk ñun ñëpp dafa fu nu aj sunu bopp ñun ko aj ci ki ci tabarkalla jàkkaam mu di Serigne Babacar Sy yéen itam tabarkalla ki ngeen aj seen bopp fexe na ba aji leen ca moom waaw bu ko defee moom mu am ca benn yéen ngeen am ci ñaar tabarkal la yal na ñaar yi barkeel da ngeen jariñoo ko waaye ndaw moom daan àdduna rekk mooy ndamam waaw te ci biir diine nag la koy mane waaw ah, ndax diine mën àdduna benn sikk nekku ci mooy yooyu nga junju ci alquran bu ci nekk di kon na li ñu daj kenn mësu ko gis wa tabarakallahu moo tax Maodo bu ñu ne ba àddunay neex mu ne kañ la ba ñoo rey yonent yi ñu ne ko boobu kay baaxul mu ne ah kañ la woon bopp waaw pour wax la ni rek lii moo fi mas nekk ñu di ko dunde di ko béggee léeg-léeg nga am béggu benn bés mu dem ak yow at léeg-léeg nga am mbégu benn bés mu dem ak yow at léeg-léeg nga am mbégu benn bés mu dem ak yow at léeg-léeg nga am mbégu ñetti bés mu dem ak yow ñetti at fa tabarakallah ahsanul xaaliqin loolu rek moo nekk te itam ku yàgg a génn daa yàgg a gis na sa darajay kilifa toll ku yàgg a génn di nga yàgg a gis na sa darajay kilifa toll loolu am na mu mel ni kon nag gen ah waaye mission mat gen amee ci je ki tax gen amee ko yalla na katana len ba ngeen yobbu ko fa mu ko bëggee tabarakallah nu itam ah di nu ci bolé dafa fekk nak dafa am lu mu waxoon booba ndaw lanu mu ni man nat nañu sa at manu ko mu ni ma nee ñu fanweeri ngay dund waaye awma ca benn xalaat mu ni ma xanaa taxawaay bokk waaw waaye fanweeri ngay dund mu ni walla ah xanaa taxawaay bokk ba mu ko waxee léegi yàgg na tabarkalla tabarkalla moo tax du nu xeeb mukk taxawaayam ndax ku pal fan fanweer at ya. mm-hmm. mag di la taxaw ba nga di ko nettali gannaawam jar na sant yàlla noonu rek la demee mm-hmm. dama ko daan wax ma di ko dégg bu ko defee bokk yaa ngi fii mm-hmm. ah mu mel na ñi nguur gi ci dëkk bi ngeen di diisoog ñoom te di leen ormaal ngeen di diisoog ñoom te di leen ormal lu leen jaaxal bu leen ko fajal seen bopp ngeen waxtaan ak ñoom ba noppi ndax nekk naa ca tugal benn préfet nekk fii ci Tivaouane yónnee ndaw ba tugal di ma wax ay xew-xew yu fi xew te yàlla ak bëgg ca xam sama xalaat a tax ñu ndax dëkk bi dafa naqadi lool ndax daf fi am ay boroomi kàttan yuy nangu këri jàmbur yi ay boroomi kàttan yuy nangu suufi jàmbur yi ay boroomi kàttan yuy nangu toolu jàmbur yi te loolu jaaxal ko xamul nu ci war a def ba ndaw la ñëwee wax ma ko Moustapha Cissé bu pire la ko yónni mu ñëw wax ma ko ma ni ko xanaa bu ma ñëwee Dakar ak jàmm nu gisee waxtaan ci pour wax la ni dëkk bi neexul ko ëpp sa morom doole rek duma wallaay ndeysaan te daawul nekkee noonu nag dëgg dëgg ku la jaay këram sañ nga ko jënd waaye ku la jaayul bàyyi ko këram moo gën a baax ku la jaay toolam sañ nga ko jënd waaye ku la jaayul toolam bàyyi ko soolam kooku moo gën tool bu jar fukki junni nga jëndi fukki junni waaye bu ko jëndi junni kooku àq la loolu yëpp dafa mat a bàyyi xel waaye lu leen ci jaaxal bu leen ko fajal seen bopp dem leen ci kilifa yi ñu fajal leen ko moo gën a baax ndax kilifa yu baax a ngi ci kilifa yu am yërmande yu xam yoon ngeen bàyyi leen xel ñi fi nekk di leen aar ngeen di leen ñaanal kattan tabarkalla la ndax itam aar bi ci biir diine ji la bokk tabarkalla la Serigne Babacar moo nu ko jàngaloon te ba nuy dund mu gis ko xam nu mu ko daan defee xam itam luy nekk militaire ndax ba nu amee ñaar fukki at la nu woo soldaar te bu dul woon farata du nu woo te warkàlla yooyu yëpp dafay xamal nit waru garam moo tax rek la nu leen wax démb assalaamu didd al izza laysa bi salaami al wallahi السلام ضد العزة ليس بسلام الأحرار والسلام ضد الاحترام بالواجب ليس بسلام المسلمين والله الأولاد ما يلجنه تبارك الله مدلين نيانل لساكو تيان نيان يدكو تك تلوخو غورغي مدكو جوتالي برامم مدكو جوخ مينيان تيان مدينو كو جوخ جوخت ومباخي Anda na nu ko yàlla defal tabarkalla du du du nu ci doyal ba nuy ndaw lan ko tàmbali ah dégg ngeen seede yi dañuy ko wax ñëpp tabarkalla kenn bakkanam taxul muy wax nuy ay ndaw gi di wax ni na ngay waxtaan ak nit ñi deful aduna tukki ñoom fi maam bu neex neex ñu di ko wax xanaa fàttaliku ngeen ko su ñëwee mënu Umar Samb waxal maam Samba maam Samba la ma daan wax soxna sukkan ni ko waajile yow kii papam tuddewu ko maam Samba Sayid Cheikh Ahmed Tijani la ko tudde mu ne ko waaw na tudd wàllam waaye na bàyyi ma tudd sama wàll mu ni ko danga xamoon maam Samb mu ni ko maa ko xam sëtam yëpp moo ko ci gën a niru moo tax ma tudde ko ko wallaay ndeysaan maam Samb Abdoulaye mu jur Abdou euh, Alxaaji Abdul Hamid Kan bu nga defee mu ni ma wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay la Serigne Cheikhou daan na wax ni di leen ci def ndànk waaw leen ci def ndànk ndax xamuleen lu yàlla denc ci moom wallaay daan na ko di wax waaye maa ngi fàttaliku muy wax bàyyi Samb Omar Samb lay wax ñu ngi jëm ci jamono bu nga xam ni da ngeen bàyyi maam Samb muy wax waaye bu keneen wax wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan maam la ci nun wallaay ndeysaan di na jaay ci Soxna Sukan waaye rekk nit ñi am na lu lu ñu xamul ci moom ndeysaan mu di ma ko wax bu nu wéetee rekk soxna suka ni ko waaw yow di saaga ñëpp ba ci sëñ Babacar sax da ngay saaga ci kanamam lu tax doo saaga ci kanamu Cheikh mu ni ko ah, euh, maam Samba du saaga ci kanamam wallaay ndeysaan maam Samba moom duma saaga ci kanamam wallaay ndeysaan dañ daan waxtaan rekk doonu bettee ñun ñaar da ngay waaru waaw xikam yi muy wax da koy ëpp ndeysaan waaye bu nit ñëwee rek mu tàmbali saaga yi wallaay yàlla xam na ko wallaay nee na général Brevier ne dafa invité ancien combattant yi nee na ma fexe ba ca nee na ma fexe barax ca nee na muy nuyu nit ñi ba agsi ci man bëgg a rocc loxoom ma téye loxoom nee na ba yëg ni mi ngi lox mu ni ma kilifa amul yàlla rekk am mu ni ma keroog yëg naa ci moom lox goo xam ne bu doon kilifa du lox mm-hmm. waaye téye gëma téye loxoom te xamuma moo tax amul loxo nee na ni ma qui êtes-vous xanaa loolu mooy gouverneur général moo fi yàlla ju ndaw ku àttana téye loxoom jar nañu laaj ko mooy kan mu ni ma ma dal di fent rekk lu kenn xamul na mu tudd ni ko ici Sow Lamine Abdourahmane Ben Mamadou magistrat, prophète, représentant de Dieu. Vous me voyez à ah yëf di ancien vidanceur, ancien maître maçon <laughs> ancien préposé des douanes en Côte d'Ivoire écrivain public désigné pour venir mettre le monde en règle sans bruit ni trouble. nee na mu gën na damay dëdd rek mu jëlu ji sëñ Babacar Si ñoo ni ko am na nit ku fi ñëw xaw na ma rey sax kan lu wax am na mu ni yàllaa ko yónni mu ni ma sa papa yaru bis bu ne daf koy wax mu ni ma sa papa moo yaru nee na naka la ko ko wax rek mu ni dënn xam mana ne mu ni ko ko la <laughs> yaram bi dafa xaw mu ni ma wax ni ko rek dama dof waaye mu ni ko yaram wi dafa xaw tàng ma ni ko ku du ko wax wallaay ndeysaan bu wax la ne rek fii lu ne am na fi lu ne am na fi foo bëgg a jëlee xikma rek foo bëgg a xikma mën nga ko fa jëlee tollu woon na jamono tabarkal la foo bëgg a jëlee xikma rek mën nga ko fa jëlee kon nag yàlla na yàgg ah nu itam nuy def léeg nu ñëw rek. waaw léeg-léeg nu ñëw léeg-léeg nu ñëw bu xew-xew bu rëy amee it nu ñëw bu xew-xew bu rëy amul it nu ñëw ba àdduna gën a leer tabarkalla tabarkalla kenn ku ne ci yéen na jàng fatiha bu sel na jàng falax ak naasi jàng ñetti salaatul fatiha ñu ñaanalante yàlla xanaa dafa am ñu doon bindulu ay ijaazaat ni daal dañu bëgg mu jóge directement ci man jaar ci yéen ñëw ci seen loxo yépp nag defaroon nañ ko ba noppi bu ñuy jógee rekk mu ngi ci seen loxo eh, eh, jàng naa ko tabarkalla liggéeyeen wi am na solo mu ngi ci sëriñ Moustapha indi na ko démb bërki démb nu jàng ko doyloo ko kenn ko ci ne sa ijaaza ñu jox la ko danga jàpp ko te xam ni ah mooy sa médaille mm. waaw tabarkalla mooy sa médaille nga bañ ko xeeb nag mooy sa médaille la xale lu tukulóor ba waxoon far médaille indil ma ko ma ni ko foo ko jële mu ni ma fële ca wetu aw ñuy teg mbalit yi laa ko fekk ma ni ko borom daf ci tay ma ni ko du for borom daf ci tay waaye am na médaille yoo xam ne borom du ca tay waaw am na médaille yoo xam ne borom du ca tay ngeen di ko garder di ko jàpp te itam rekk dégg naa ci sëñ Babacar mu ni xam sellu taalibe yee taxoon Maodo nanguwul jël dàll dugal ci biir dàll ndax xam seetlu taalibe yi rekk jël sa dàllu duubal talon jël benn bi dugal ci biir benn bi nee na booba dafay bàyyi tilim ji ci biir bi nga ko dugal te boo ko dindee comme sa tànk dafa sell du jaadu nga solaat ko ba moo taxoon muy wax ni di leen dëppale ñaari talon yi moo xew ci mag ñi ba léegi sëñ Babacar def na ko bés keroog ba Chérif Tayib di ñëw mu di ko teeru te xam ne teeruwul Chérif Tayib Seyid Cheikh Ahmed Tijaan lay teeru mu summi dàllam bu jëkk ca taliba moom sëñ Babacar jël ñaari talon yi dëpp ko nit ñi bëgg mu jox leen dàll yi mu bañ bokk ko ci poqotaanam wallaay ndeysaan moo tax yëf yi diis na gën wallaay ndeysaan ndax xam na ni Cheikh a doon ñëw waaw xam na ni Cheikh a doon ñëw waaye jël sa dàll dugal ci biir wallaay waaw wallaay waaw waaw waaw waaw.